الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أكبر أنت وأبكر حسدي السلام عليكم بك طالبي بك جلدي نيو لين شعر وير وير تاي نك نيون في في مزار الجنان غير بس ماك بي نيك سون كانام مي لو 27 بس بي ني تيجي barab bi nga xamanteni bobu ba léegi mbokki talibe yi ñooy gis liggéey bi ñuy avancé bu baax a ku seetaan télé fan yi yëpp si télévision 3 TV wala Lamp Fall wala yeneen télévision yi nekk si réew mi ñu gis waajkaay yu am solo ñu si waajal mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi te nag Nour Daayén TV ñëwoon fi ngir jël ne ay image yu am solo yoo xamante dinañ leen ko digtal laataa bis bi ñu daje fee nag ministre de l'intérieur ñu woon fi amal fi CRD bu am solo ak visite boo xamante ni tamit dafa def na ko Nour Daayén TV ñëw jëlee leen incha allah ba si kanam ngeen seetaan ànd ak Gueye Mbacke Faye ak ministre de l'intérieur ak mboolem journaliste yi nga xamante ni teewoon nañ si barab yaa

Господи, waaw mbokki taalibe ba tey barab bi boo leen ko séenee mooy barab bi nga ne mooy saytu mboolem caméra de surveillance yi nga xamante ne installé nañ ko biir jumaa ji ak bitib jumaa ak mboolem alentour yi nga xamante ne ñoo seex fi jumaa ji ba si rond-point bi nga xamante ne moo jàkkaarloo jumaa ji kon loolu dafa nekk lu am solo loo xamante ni koo xam mbirum sécurité si jamono ji fii ñu toll ak àdduna bi fi mu toll si mbirum sécurité tax na ñi nga xamante ñoo liggéey jumaa ji ñu sóoraale ko si bu baax baax a baax jox boo leen gisee matériel bu nekk matériel bu am solo bu cher boo xamante ni tamit dëkkoo dëkkoo naa ak jumaa ji fii bu toll si mbirum sécurité ak koo xam sécurité na mu amee solo nu nga ko waxee léegi rek kon ñu ngi bàyyi tamit ngeen gën a seetaanoon bu baax a baax xam ni liggéey yu ama am solo nan def si biir jumaa ji sonorisation bu ama am solo waajal nañ ko tamit si barab bi yëpp fii nañ koy saytoo ku ne jumaa nag xam ni sonorisation si am solo lay doon ndax mboolem waxtu juróom yi rek incha allah dinañ ko ba mbollem du wër Colobane HLM sikap ku fa toll di nga deg no deg kon yaakaar naa sonorisation bu am solo doon lépp si barab bi na nag kay saytoo kon ñu ngi leen jaajëfalaat bu baax a baax mbokki talibé yi si visite yi nga xamante ni nii ànd nañ ko jëriñ Sëñ Mbàkke Fay ak ministre de l'intérieur kon yaakaar naa image yi am na solo lool si biir jumaa ji ak bitib jumaa ji yëpp kon nii ko fas yéenee ànd ak yéen ba le 27 septembre incha allah mboolem fi mu toll si liggéey bi incha allah dinañ leen ko wan am na vidéo yoo xamante ne incha allah dinañ leen ko ngoon wala suba incha allah yoo xamante visite bu am solo boo xamante ni Nour Dany TV defal na leen ko mboolem barab yi nga xamante ni nekk na si biir jumaa ji ak bitib jumaa ji ba si entrée bi yëpp incha allah dinañ leen ko dëgtal incha allah fii guddi incha allah kon ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax a si teewlu bi nga xam ne ni yéen koy teewlu Nour Dany TV fii si biir réew mi ak kon jaa ngeen jëf incha allah si yeneen vidéo Azza